bonjour amis fidèles internautes Sénégal 7 ñu ngi leen di duy bu baax a baax di amaat un réel plaisir di ñëw ci seen euh, nouveau numéro. entretien yi comme niñ koy faral di defee euh, bokk na ci li nga xamante ni nag moom lañ fas yéene waxtaanee euh, muy euh, processus électoral bi li ci xew yépp ba fiñ ci toll ak li nga xamante ne nii moom mooy wàccaayu campagne bi gis nañu ne am na ci candidat yoo xamante ni jamono ji commencé nañu jël seen décision ngir rek wëyal li nga xam ne moom mooy seen ëllëgu politique fii ci Sénégal ak li ko wër bu ñu jógee aussi ci loolu dinañu ñëw ci li nga xam bareetul campagne bi la 4 incha allah la war a demare ba tax na yooyu le ponk la ñu fas yéene waxtaanee koo xamante ni duñu ko présenté askan wi muy euh, Vieux Thiane ku wax Vieux Thiane nag sa xel dina dem ci li nga xam ne moom mooy taxawaayam ci wàllum politique ak li nga xamante ne nii tey moom la amoon comme euh, bëgg-bëgg ngir rek laaj euh, suffrage sénégalais ba tax na rek ci loolu yëpp la ñuy fas yéene waxtaanee ak moom monsieur Vieux Thiane maa ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay fay bu baax di lay nuyu sa tur ak si sa sant di aussi équipe bu Sénégal sat di nuyu aussi mbokk internet yi nga xam ne ñoo nekk di ñuy seetaan si Sénégal ak si diaspora bi di gërëm ñëpp ak di sant ñëpp. merci beaucoup donc amoon nañu plaisir dalal la euh, comme ni ma ko waxee ni ma ko énuméré léegi ci sama ay points bokkoon nga ci ñi nga xamante ni ni euh, candidat lañu woon au départ. ñu bëri di samp laaj lan moo waral nga reculer entre temps avant sax ñuy dem ci li nga xam ne moom mooy phase parrainage. bon euh, man mm, effectivement dama nekk un jeune politicien di politique depuis 2012 à nos jours nekkoon fi candidat élection locale yi passé ci commune de Richard Toll doon euh, jonganteeg ak ñoo xam ne ni wax dëgg fa yàlla ñoo ma jiitu ci politique. bon mën naa ne sax euh, dañoo nekk parti au pouvoir man ma jël initiative dem nekk parti opposition c'est-à-dire nekk un candidat indépendant euh, yàlla def euh, ki nga xam ne mooy président assemblée nationale gagne ci loolu ma jóge fa ne damay am vision pour nekk président de la république du Sénégal ci la demee direction des élections récupérer sama fiche de parrainage nekk numéro 169 commencé woon di ci liggéey nag. waaw commencé woon ci liggéey ak sama équipe parce que ba may déposer sama fiche euh, dama déposer fiche bu mag parce que raison boo wax ci Sénégal am naa fa représentant ñu commencé woon parrainage yi ba yàlla def ñi am presque ay soixante mille parrains ba ñu demee ba war a déposer euh, candidature yi ñi gis ne réew mi bëri na ay problème bëri na ay jaxase ko coow li bëri na ci leen ne actuellement li gën mooy ñi dem xool ki nga xam ne Euh, mën nañu ànd ak moom ñi ànd ak moom ñi coaliser pour doon benn parce que bu ñu bëggee réew mi avancer il faut que ñun ñëpp opposition bi ñu àndandoo dooleendoo doon benn loolu moo waral ma retirer sama candidature dem jël décision pour soutenir beneen coalition Mhm. alors euh, gis nañu ne aussi euh, processus électoral bi euh, ñu bëri ñu ngi dénoncé que ni dafa bëri loo xamante ne ni ay irrégularité la ku ci nekk gis-gis bi nga ci am li ci xew ba ci audience beeg yëpp. Mhm. tey lan la ñu mën a jàpp ci processus bi que ni fi ñu toll nii daar daar moom la ñu war a doxal pour que élection yi am ci jàmm ak salaam. bon fu mu toll pour élection yi am dañuy ñaan yàlla déjà suñu borom pour mu am bu jógee ci loolu. ñi dem ci ki nga xam ne mooy njiitu réew mi muy président de la république Macky sàll mu jël affaire teg ko ci yoon xam ne nguuram jeex na te aussi amoon na ngor ak coloré taxaw ci kanamu sénégalais yi ne bokkul mais après dafa revenir ne bokkul mais dafa am keneen ku muy soutenir ba bokk sax ci directoire campagne am te loolu yëpp mënoon ñàkk mënoon na def comme ni ay moroomam def ñi fi jaar parce que gënul leen mais teewul dafa jël décision pour bokkaat ci langue gi même bu dee laajul troisième mandat sax ki nga xam ne moom la jëloon def ko premier ministre moom lay laajal réew mi kon maanaam mën naa ko considérer comme troisième mandat. bu dee aussi bëgg na élection yi aussi am si jàmm ak salaam comme ni ñu ko waxee jàpp date ne dina am incha allahu rabi le vingt cinq février kon yaakaar naa ne ñoom buñ ci jógee def lu ñu war a def teg ko ci yoon élection yi dana am si jàmm ak salaam parce que bëgg bëre bëre ñàkk bëgg bëre bëre kon nañu ñëw ñu bëre parce que suñu bëree intérêt réew mi la intérêt Sénégal la ñu bàyyi intérêt personnel digital intérêt général ba pare aussi élection yi mu doon élection yoo xam ne ni dañ koy teg ci yoon teg ko ci euh, euh, yoon ba sénégalais bu ne man ci gis boppam mais bu ne tey dañuy euh, woote jàmm ak salaam suba ñuy wax waxu rapport yaakaar naa ne loolu du indi lenn lu dul fitna te fi xajul ci réew mi te ñun dañuy ñaan lu ne ñu ngi koy ñaan pour réew mi am jàmm ak salaam kon tey report des élections mun gëm naa ne du am bu neexee suñu borom xanaa ki nga xam ne mooy président de la république bëgg ko insister ci te bu ko bëggee insister aussi ñun danañ taxaw ne dina am ci nii wala dana am ci naa ci jàmm ak salaam ak ci teraanga. alors euh, tey yéen ñëpp da ngeen di joxoñ baaraamu tuuma président de la république du Sénégal mais parfois aussi. Mhm. est-ce que moom euh, euh, doo leen koy xaw a tooñ parce que tout tout simplement. Mhm. am na ci loo xam ne concerné wu ko mais conseil constitutionnel la concerné. yaakaar naa boo leen di joxoñ baaraam aussi moom ngeen di joxoñ baaraam mais lu ci ëpp dañuy gis lu xew rek da ngeen ne mag Sall mag Sall mais parfois aussi est-ce que mhm. doo leen wax ak les personne concernées. loolu moo lay war ne le Sénégal va mal. bu doon Sénégal réew réew mu la réew la boo xam ne nii lépp lu ñu def dañ koy teg ci yoon kon tey lu am duñ joxoñ Macky Sall mais dañuy dem fan ko fan war a dem mais dañoo dem ba gis ne Sénégal lépp lu fi am ci loi bi ci politique bi ci santé bi ak lu mu mënti demee ci justice bi ak lu mu mënti demee Macky Sall moo nekk ci ginnaaw mais bu doon Macky Sall dafa toog palais di gouverner di gérer gestion bi comme il le faut mu bàyyi ku nekk mu indépendant xool li nga xam ne mooy njëriñu réew mu def ko kon bu boobaa kenn du joxoñ baaraam Macky Sall mais ñëpp dañoo wax ne lu am rek ci fu mu mënti doon Macky Sall dugal ci loxoom tey Macky Sall tey bu doon par exemple tey euh, euh, nekk na président boo xam ne nii day génn ci loxoom ci yenn euh, institution yi kon problème du am mais puisque day dugal loxoom ci yenn institution yi gisuñu ko nag teguñu si bët mais dañ ci am yaakaar te aussi duñ ko accuser mais dañoo am yaakaar ne lépp li nga xam ne am na ci réew mi ci suba ba ci ngoon ci Macky Sall génn ci loxoom loolu moo tax ñun chaque fois dañuy adresser directement la voix à Sall parce que Macky Sall mooy suñu président moom la fi yàlla def ba bàyyi incha allahu rabi bu neexee suñu borom le 25 incha allahu rabi nga xam ne keneen dana ñëw remplacer ko. d' accord alors euh, balaa ñuy àgg ci loolu dinañ ci ñëw léegi ndaxte jot nañu benn information ci sa côté. Mhm. Euh, que ni jël nga sa décision fas yéene rek a xool ki nga war a àndal ci li nga xam ne moom mooy élection yi euh, d' abord collectif bi nga xamante ne ni candidats yi nga xam ne jotoon nañu jot nañ leen recalé ñii xooluñu leen ñii bàyyi nañ. est-ce que d'abord yow adhéré nga ci collectif bi. bon man euh, opposition bi ci lépp lu ñu nekk rek maa ca mu xam ma nekk fi maa ca mu xam nekkuma fi maa ca dama xawoon génn tuuti dama voyagé woon mais téewul à chaque fois maa ngi dégganteeg ñi ma war a dégganteeg pour xamal leen ne maa ngi seen ginnaaw tey maa ngi seen ginnaaw suba maa ngi seen ginnaaw ginnaaw suba parce que man musuma bokk parti au pouvoir mënuma comprendre nag depuis 2012 à nos jours Macky Sall la nekk ci réew mi nekkuma APR liggéeyaluma APR mosuma bokk APR musuma am carte APR ñi dem ba mu dese leen fi quelques semaines je dirais même trois semaines maximum maanaam damay dugg seen biir loolu xalaatuma ko sax dama ne la opposition bi même buñ jëloon benn nit boo xam ne ni analphabète la opposition bi jiital ko kooku lay ànd ak parce que man opposition laa te damay fier nekk opposition nekk opposant bokk ci opposition bi kon tey li may wax li dama ci jël sama engagement te yàgg naa ko wax ci euh, émission yi ma jot a jaar li may wax tey moom laay wax suba man bokkuma APR bokkuma PASTEF mais tey jii nii man ànd ak PASTEF moo a gënal fukki junni ànd ak APR xalaatuma ko sax parce que au minimum Sonko toogul ci réew mi Bassirou Diomaye Faye toogul ci réew mi Cheikh Tidiane Dièye toogul ci réew mi alors que ñoom def nañ fi 12 ans yoo xam ne ni tey ñëpp gis nañ ñu fi def. man en tant que jeune entrepreneur lan laa defar réew mi man li ma liggéey réew mi li ma liggéey réew mi nga xam ne sama ñaq bopp la man Macky Sall defu ko defu ko Macky Sall li mu liggéey réew mi yëpp ñaq Sénégalais yi la mais man liggéeyal naa réew mi loo xam ne sama ñaq personnel la man bu weer bi dee ñaata nit laay fay ñaata chose laa fi créé ñaata nit lañ dàq si université publique yi ma inséré leen bëri na yoo xam ne ni tey su ma toogee fii di koy wax duñ fi jug lu moo tax benn bis nee naa euh, nit bala muy nekk président war nañ ko wax yow loo defar réew mi muy muy sa ñaq bopp mais nga toog fi nga toog ne man defar naa li Sénégal alors ko ñaq Sénégal yi nga ko utiliser yomb na mais mag président Macky Sall la na ma waxal dix choses yoo xam ne def na ko ci ñaq boppam loo xam ne ñaq Sénégalais yi kon tey ñun euh, bu ñu demee ba farfee na rek am na li tax parce que kontaan nañu ci ñoom te fu ni nii tey euh, am na lu bëri tey ñoo waroon nañu ko def pour jeunesse bi defuñu ko man je jeune entrepreneur li ma liggéeyal ci éducation ci réew mi kenn ko kenn xamu ko musuma sax jot benn genre attestation de remerciement venant de l'État du Sénégal 2012 à nos jours 2012 à nos jours mooy yor samay bët nag di xëpp di xool di xam di analyse ñoom bu doon tey def nañ li war a def élection locale yi passé du duma du ma dem nekk candidat indépendant damay dem ànd ak ñoom mais dañoo deful lu ñu war a def moo tax ku nekk si ñun day dem ak boppam te même bu doon tey suba suba bu élection amaatoon élection locale amaatoon élection député amaatoon du ma ànd ak ñoom damay dem ànd ak opposition bi wala ma dem jël sama parti bopp dem ak sama parti bopp te li may wax aussi je prends toutes mes responsabilités. Mhm, d' accord mhm. euh, foofu la ñu koy euh, ba tey rek woyalee dégg nañ la sa biir wax nee nga da nga jël sa décision euh, bokkoo woon Pastef mais jamono ji ñu wax ak yow da nga jël décision soutenir la candidature de Diomaye pourquoi le choix de Diomaye. bon xam nga ba tey ni may waxee yoon yi man yoruma carte membre Pastef. mais wax dëgg fa yàlla man sympathisant Ousmane Sonko laa. ok loolu moom nit bëgg ko ak nit naqari man sympathisant Ousmane Sonko laa. wax dëgg fa yàlla euh, dëwuma kër Ousmane Sonko fréquenté wu ma Ousmane Sonko mais sympathisant Ousmane Sonko laa man dama ne woon ba ma retiré sama candidature dama ne bu Ousmane Sonko di jàll man leer na candidature Ousmane Sonko day jàll man Ousmane Sonko laay laay laay laay soutenir bu dee candidature Ousmane Sonko jàllul. ci laay doog a xool keneen ci opposition yi ma dem ànd ak moom yàlla def Ousmane Sonko demul jàllul mais mu jiital benn candidat muy Bassirou Diomaye fay moo tax ma jël décision man ànd ak Bassirou Diomaye fay te bu doon tey Ousmane Sonko jàll na man du ma ànd ak Bassirou Diomaye Faye mais Ousmane Sonko laay ànd ak parce que sama décision lan la mooy ànd ak Ousmane Sonko ànd ak bi ma ànd ak ñoom ànduma ak ñoom pour xaar ci ñoom dara xaaruma ci ñoom dara. Mm-hmm. soxla ci ñoom dara wax dëgg fa yàlla au contraire. dinaa jël sama oto dinaa jënd sama carrière bopp dinaa defar samay lakos bopp dinaa defar samay t-shirt bopp dinaa defar samay affiche bopp dinaa indi sama équipe sama équipe sa même bu ñuy def ay kiisa sax maay maay financé lépp dem campagne leen parce que loolu décision boobu laa jël man gor laa su ma xasee ba ne damay ànd ak nit duma xaar nit ki defal ma mais dama ci def te en retour xaaruma ci ñoom dara dama koy def avec plaisir parce que dama gëm ne Sénégal dafa war a changer dama gëm ne te damay am yaakaar ne ñun li nga xam ne ñun ay jeunes lañ ay jeunes intellectuels nag wax dëgg fa yàlla ay jeunes intellectuels lañ jàng nañ xam nañ te ay magam jëmm lañ même bu dee ay xale lañ ci age mais magam jëmm lañ ci xalaat kon tey bëgg nañ ëllëg Sénégal romb fi mu ne te aussi dañu waxante dëgg nit mënu fi nekk pendant douze ans lijjantiwul euh, jeunesse bi xamul fu jeunesse bi euh, maanaam boo leen fekkoon fi toog nga ne leen génn leen ma la liste des jeunes entrepreneurs du Sénégal duñ la ko génneel wala nga wax leen génn la liste des jeunes yoo xam ne ni ñooy liggéey ngi développement réew bi du la ko génneel et actuellement nii ni may wax yow nii même président Macky Sall bu ko neexee mu toog ci télé bi moom mu laaj jeunesse bi buñ toogee di am information concours fan lañ koy amee du leen ko wax mu na ko dem laaj jeunesse bi jeunesse bi bu ñu bëggee am information emploi fan lañ koy amee na leen ko dem laaj jeunesse bi bu ñu bëggee am information bourse fan lañ koy amee na leen ko laaj alors que yëpp ce sont des articles yoo xam man maa koy publier par jour si plateforme yoo xam ne nii plateforme yi man maa ko moom maa ko créé te ba ma koy créé j'étais élève en classe de terminale boo xoolee la plateforme éducative la plus visitée au Sénégal éducation sn point com qui l'a mis en place est-ce que ñoom la jënd plateforme moo fi nekk di informer jeunesse bi ci affaire offre emploi offre de stage offre de bourse guide d'études ainsi de suite mais ñoom tout le temps ñu ngi xool ki nga xam ne moo nekk ci réewam ci localam dajale ay nit mën a saaga mën a xeex mën a dégg sante mais du xool ay intellectuel du ñu xool ay nit ñoo xam ne ni ay borom xam-xam lañ ay nit ñoo xam dañu am vision ay patriote léegi nag loolu man moo ma gën a poussé ma dem ànd ak coalition Diomaye fay pour ëllëg au minimum man dinaa mën a kat ah envoyé leen sax benn message ne leen kat su doon sama sago ngeen def lii ci éducation su doon sama sago ngeen def lii ci santé su doon sama sago ngeen def lii ci emploi su doon sama sago ngeen def lii ci affaire ainsi de sànni leen message yoo xam ne ni ñoom dañ ko jël en compte mais par contre ñoo xam ne ni yow lijjantiwul la xamuñu looy dundee xamuñu Sénégal lu muy dundee ñoom bu ñu xëyee ñu ngi voyage fu ñu bëgg a dem ñu ngi yor seen passeport diplomate ñu ngi yor seen ay avion ñu ngi yor seen ay euh, carburant lu ne ñu ngi koy am gratuitement alors que Sénégal yaa ngi ci à côté di souffrir am na yaata jeune docteur ñoo fi ne nekk ay docteur jàng ba ne hu te pourtant bu ñu xëyee cinq cent francs sax dañu koy am dañu am bu ñu lu ñu dindee café dañu am problème bi alors que ñoom est-ce que danañ am problème café au contraire fu ñu toog la ñuy toog ñu ne ñu servir café bu ñu bëgg bu dee café Touba doon ko naan bu dee espresso doon ko naan Nescafé lu mu mat doon naan par a ëpp xam-xam fukk ñoom ñu nekk pale toog am na jeunes yu ne ci dëkk bi ëpp leen xam-xam dàq leen jàng gën leen a muus amuñu lu ñu lekk ñoom nañ ñu ngi toog fi ñu toog lu ñu bëgg leen koy def yor ay milliards yor ay millions pour quelle raison il faut que partage am partage des idées il faut ci réew mi il faut que partage des idées intellectuelles am ci réew mi mais bu dee ku nekk rek fal naa fa nekk na président lu ma neex lay def lu ma neex laay wax loolu du jàll. te man personnellement man en tant que euh, jeune en tant que président union pour un Sénégal modèle defal Sénégal lépp lu ma mën def même bu dee ma fay bàyyi sama bakkan ngir Sénégal développé dinaa ko def. d'accord gis nañu ne euh, jamono ji ñëpp a ngi wax benn euh, mbir boo xam ne dina xaw a jaaxal sénégalais parce que sa comme ni nga ko waxee Diomaye actuellement mi ngi prison. te ku ne xam ne ni prise d'antenne yi vendredi incha allah war na démarrer. Mhm. tey ñi yàgg ngeen dugal yàgg nañu dugal requête liberté provisoire pour mhm. Diomaye mais jusqu'à l'heure où nous sommes ma nga fële ca prison ba ba tey mhm. donc bu fekkente ne aussi génnul est-ce que loolu du leen xaw a handicapé par rapport ak campagne bi. non du handicapé dara Ousmane Sonko élection yi passé élection député législatif yi du woon candidat. bokkuloon ci liste mais dafa ko jaral mu dem di campagne comme si ci liste la la la la bokk parce que intérêt général la doon xool xool woon intérêt personnel. jomaay fay ñoom bu ñu ko génnewul dañ ko tooñ te ñoom yàgg nañ di tooñ mais actuellement ci yoon ci yoon Diomaye fay dafa war a génn parce que nit ki mënoo na yow déjà candidat la ku dem ba nga xool ay dossier ne kii kat ku set la ku licite la. ah dafa dafa war a yor réew mi dafa war a nekk candidat nga valider candidature am ba pare teeku ci prison pour quelle raison lu tax ñu teeku ci prison bi amul daraay luy tax ñu wa teeku ci prison bi lu ay affaire de caaxaan parce que teeku ci prison pour lan pour réduire pouvoir am mais xamul ne sénégalais yi ñu ngi xoole ñu ngi yor seen bët ba waaye fay même bu nekkee ci kaso bi am na ñu ko nekkal dagana am na ñu ko nekkal Saint-Louis am na ñu ko nekkal Ziguinchor am na ñu ko nekkal Bambey am na ñu ko nekkal Kédougou am na ñu ko nekkal Sédhiou am na ñu ko nekkal Matam am na ñu ko nekkal Podor am na ñu ko nekkal dakaar am na ñu ko nekkal Thiès am na ko nekkal diaspora am na ko nekkal partout ci Sénégal ak ci ci bitim réew man mii di wax yow nii nii nii soxlawuma jomaay fay ñëw par exemple de département de Dagana di campagne ci soxla moom mu ñëw man ak ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom danañ def le maximum possible man actuellement maa ngi ak benn base boo xam ne nii mu ngi nekk trois cent soixante huit mille jeunes là je vous le boobu après naa la koon sama ordinateur gi nii soixante huit mille jeunes nom prénom numéro de téléphone loolu base boobu maa ngi ko collecté depuis 2012 à nos jours lu tax ma collecté ko mooy ñoom jeunesse ñi ñi remplir base bi yëpp mooy ñi nga xam ne dañoo toog fi ñu toog bëgg emploi ñu envoyé envoyé message euh, inscrit samay plateforme ñi bëgg stage inscrit samay plateforme ñi bëgg a euh, euh, bourse inscrit samay plateforme ñi bëgg am information ci concours ci examen yi inscrit te plateforme yooyu noonu euh, plateforme privée la ñun ñoo ko def en place pour dimbali jeunes yi pour jeunes am information ci ci ci lu jëm ci wàllum éducation et en retour ga bëgguñu ci dara te à chaque fois information mu am jeunesse bi ñooñu dañuy jot message dañ leen ñu message gratuitement rien pour ñu am ces informations ñooñu ñun dañ leen invité wax leen c'est le moment que ñi ñëw dimbale jàppale ki nga xam ne mooy Bassirou Diomaye fay pour mu jël réew mi parce que jeune la comme ñun te bëgg nañu aussi ëllëg jeunesse bi soqaliku maanaam bëgg nañu au moins ñi nga xam ne jàng nañ seen ñàng mu jariñ leen dara ñi nga xam ne aussi jànguñu ñi état bi jéem a fexe naka la def ba jàng ñi nga xam ne entrepreneur état bi aussi jéem leen jéem a jàppale accompagner leen ba Sénégal di gën di avancer di gën di dox parce que Sénégal en tant que ñu ngi dundee nii toog fi ñu toog duñu dem parce que man dama am fi am fierté ci yenn pays voisins yi bërki démb njaay la yenn pays quitté CEDEAO man dama ci kontaan fierté ci am ci fierté parce que day métti rek ñu fekk ko wala ñu ñàkk fekk Afrique incha allahu rabi dana dem ba tubaab bi ñoo ñuy soxla mais ñun duñ mas soxla ci tubaab bi te man loolu yàgg naa ko gëm yàgg naa ko di koy wax je me rappelle temps yi ma nekk université man dama naan toog di wax samay collègues ne leen man man ëllëg damaa bëgg doon président dama bëgg a nekk président du Sénégal am na ñu ma doon ree parce que li tax ñu ma doon ree dañ naan ah man la fekk rek ma toog rek ne ma dama bëgg ne président lu tax loolu ma tegal leen li nga xam ne bu ko Sénégalais yi defee bu ko. jeunesse ah, bi defee aussi Sénégal dafa am réalité yu fi nekk tey boo ñëwee di dagaan baatu askan bi foo ko nekk peut-être koo xam ne xam xam nañ la wala ràññee nañ la. ci li nga xam ne moom mooy langue politique effectivement xam nga loolu mooy maanaam jamono yi nga xam ne dama nekkul université mooy sama première année université. xam nga tey Macky boo ko laajoon tey âge bi ma am man mii dama nga laaj Macky ne ko âge bii ba ma am nii ba mu ko amee ci la la nekkoon kenn xamu ko woon xamu ko woon Macky Sall tey bu ko nit ñi xamee Sénégal na ko gërëmee eh, ginnaaw yàlla na ko gërëmee Ablaye Wade na ko gërëmee Ablaye Wade gis nga fii lenn benn au contraire benn esprit la sénégale yi am des fois pour nga nekk président pour nga nekk maire foo nga jaar eh, nekkoon ministre wala foo nga nekk dóorukat wala foo nga nekk tiliande loolu mooy fa war a jeex te sa sais man xam naa gis naa ko nii avec système wu Bassirou Diomaye Faye man xam naa ne ak gëm naa ne am naa yaakaar ne loolu yëpp dana mérite nga ku amul mérite mérité woo parce que fii nii même boo demee fonction publique da nga fay fekk ay ay poste yoo xam ay nit ñoo xam ne naan na ñu ngi fonction publique mais liggéeyuñ bu ñu xëyee doo leen gis seen kër yi nga leen gis ñi toog di naan ataaya wala nga laaj leen ñu ngi fonction publique te boo leen gis amuñu sa diplôme pour euh, de qualification pour am yenn poste yi parce que politique la chaque fois am na koo xam ne day nekk benn député wala benn nekk benn maire wala benn nekk benn directeur wala nekk benn ministre di jéem a promouvoir ay affaire soi-disant sama koñ recruter naa fi telle personne mais boo recruter nga xool ñi nga xam ne ñoo ko mérité wu recruter leen mais bu recruter parce que da naan nit ki saaj sa daf may saagal daf may xasal daf may indil mbooloo àdduna amul solo man maa ngi ni tey par exemple tey man am naa benn leçon de vie boo xam ne nii am naa ko sama commune de Richard-Toll sama commune boo fa taxawoon tey Richard-Toll amul fooy taxaw Richard-Toll ne ma ma et pourtant xam nañ ma. foo taxaw ci Richard Toll na leen Vieux xam nañu mais Richard Toll Amadou Mame Diop aussi ma nga fa. te te am na fa doole aussi moom mooy. actuel assemblée président assemblée nationale. xam nga question laa lay poser du sénégalais yi ñoo koy voté maam du comme élection présidentielle wala comme élection législative Macky Sall moo ko jël topp ko ñi nga xam ne ñooy seen i député voté dañoo dégg ndigal def. mais tey bu noon président assemblée nationale dañ koy voté comme président de la république wala dañ koy voté comme élection maire wala dañ koy voté comme élection député direct ah là moom waxuma kuy gagné mais ce sera laa là je vous le dis ba pare aussi tamit man euh, wax dëgg fa yàlla man du ma roy politique du ma ci roy waa APR waaw man honnêtement parce que bu loolu dong la ma ànd ak ñoom lépp bu yàgg mais musuma ànd ak ñoom ci politique musuma ànd ak ñoom ci vision musuma ànd ak ñoom ci gis-gis là je le dis et je le répète man ñoom bokkuñu vision sax ma sama vision politique ak seen vision politique comme yàlla yëlli man xam li ma gëm man sénégalais laa nekk africain bëgg développement Sénégal te képp ku bëgg développement Sénégal da ngaa war a xool Sénégal nu muy avancé euh, euh, parce que c'est c'est le moment c'est le moment actuellement tollatuñ ci tollatuñ ci ci ci ci ci maanaam delluwaat ginnaaw. naan APR APR dañoo war a fàtte. APR ah, mais mais instant bi xoolaat euh, leneen li nga xam ne mooy ñu ngi ñoom euh, boo xoolee tey aussi seen côté ñoom ñi ngi def le tour ba Amadou Ba gagné dès le premier tour dégg nga seen biir wax ñëpp boo waxee ñoom aussi dañ koy wax te tey boo xoolee ci wàllum euh, peut-être profil. Hmm. Amadou Ba aussi mun ñu dàq profilam. noo xam nga xam nga madame xam nga profil man mi di wax yow ni mën naa nekk président bu ko yàlla tuddee. Amadou Ba mën a nekk président boo ko yàlla tuddee Bassirou Diomaye Faye mën na nekk président bu ko yàlla tuddee mais actuellement bu Sénégalais yi bëggee réew mi dem bu Sénégalais yi bëggee changement bu Sénégalais yi bëggee ëllëg du déggaat ay problème mu euh, toj au champ ay problème mu détail il faut que ñu changer li fi ne loolu buñ ko deful ëllëg ci biir dañuy delluwaat ginnaaw li fi amoon moo fi amaat rek les mêmes personnes ñoo ñëw diriger ñu ñoo ñëw dañuy wax fu ñuy jaar Amadou Ba na bu ko neexee mu toog fu ko neex na day gagné premier tour mais na ko xam ne premier tour gagné ko au Sénégal du noonu su ko neexee na idéem la parce que nit ki doo dem bëri ji naa dañ may daan mais na xam ne réew mii nii nii APR moomu ko na xam ne aussi réew mii nii nii pour nga gagné ko il faut que nga wane li tax nga koy gagné mais moom na xam ne dafa ñëw pour porter euh, euh, troisième mandat mais ñëwul pour un niveau candidat Amadou Ba dafa ñëw pour porter troisième mandat mais ñëwul pour nekk un nouveau candidat là moom il ñu nit ñi xam ko Amadou Ba dafa ñëw pour nekk euh, candidat bu Macky Sall mooy maanaam dafa ñëw pour porter troisième mandat bi gars yi dañu bañ. moom la gars yi. mais loolu yéenay soulever boobu. yéenay wax ne voté Amadou Ba. Hmm? mooy valider la troisième candidature. mais moom waxul loolu. dama ne la Amadou Ba maa la wax lii li ma la wax nii nii dama ne la. Hmm. vidéo bi Amadou Ba dana ko seetaan. ñeneen euh, proche Amadou na ko si daan <laughs> même président Macky Sall na ko si dama ne la. Mhm. dama ne la sénégalais yi doon bañ troisième mandat jàpp leen ne bu ñu falee Amadou Ba nañu jàpp ne troisième mandat lañu la ñu fal troisième mandat Macky Sall la ñu fal gis nga fii la seule et unique solution lan mooy fal Bassirou Diomaye fay pour ñu mën a am changement total bu nu falee Bassirou Diomaye Faye Sénégal dana day amaat beneen ère Sénégal day amaat beneen air yow mi en tant que journaliste sax xam nga ci dara Sénégal day am beneen air ñoom danañ mën a toog réfléchir ci yenn plan la ñuy teg pour Sénégal développer parce que yeneen pays africains yooyu ñu gën a développé ñu ñun ñoo leen gën fukk jun yoon mais tey buñ toogee tey jëlaat réew mi jokk amul wa mun gëm naa ne dellu ginnaawu Sénégal la mais du avancement Sénégal laa moom je le dis et la le et je pèse bien mes mots. d' donc yaakaar naa ni comme ni nga ko waxee wax ji leer na mhm. ah euh, amoon nañu mbégte dalal la ñu bàyyi la nga tàggatoo ak internet yi ba beneen yoon. ah merci beaucoup di la ñuy gërëm di la sant di gërëm euh, waa Sénégal sat mhm. di aussi wax euh, vraiment voilà bëgg nañ aussi Papa ngañ mu invité ñu faram fàcce su ko defee au moins danañ am une temps yoo xam ne danañ mën a jàkkaar ak moom mhm. waxtaan ak askan wi parce que temps yi ñu ngi sorti def ay sorti yu bëri pour waxtaan ak askan wi parce que euh, li ñu def nii noonu la ñu koy defee après ci campagne yi danañ def tour du Sénégal incha allahu rabi pour euh, que jàppale Bassirou Diomaye Faye waa def ci suñu doolee nag waaw parce que déjà mobilisé nañ troupe bi déjà déjà ñun suñu groupe WhatsApp mobilisé nañ ñëpp waaw ñëpp pare nañ instant bi lu des mooy ñu xam après la la ñu teg comme stratégie confectionné lu ñu war a confectionné def ko gratuitement nag. pour jàppale Bassirou Diomaye Faye te dañ koy def gratuitement ñu ci dara du dara nag lu ñuy xaar ci Bassirou lu dul ak jàppale ko am fierté mu gagné parce que ma toogee fii ba le 25 euh, ñu ne ma Bassirou gagné na dama naan alhamdulilah ma passé à autre chose parce que man politique ma ngir wut xaalis parce que 2012 ba tey maa ngi liggéey mais politique ma aussi ngi wut buzz sama page Facebook y a plus de 100000 abonnés politique ma aussi ngir wut activité. actuellement li may gérer ci activité doy na ma soxla politique mu aussi ngir ku ma dimbale maa ngi xëy di sant yàlla politique mu aussi ngir teg ay stratégie comme gars yi ko def jox ma lii ma jox la lii doxuma ci yooyu damay def d'abord te yàlla tax te man ak Bassirou Diomaye Faye ak coalition Sonko ak Sonko ak opposition dañoo gis ne ñun rek ñoo mën a tax Sénégal avancé te bu ñu ko deful Sénégal du avancé moo tax ma rayante jël décision jël engagement ak détermination pour que réew mi avancé di gërëm ñëpp nag bu dee wax naa fi li nga xam ne waruma ko wax maa ngi gërëm ñëpp ak di jéggulu bu dee aussi def naa li mu warul def aussi maa ngi jéggulu ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne lépp lu ma wax lu bon nga xam ne lii bon na waxuma ko ngir bonal mais dama ko wax ngir defar te aussi nañu xam ne Sénégal dafa war a avancer Sénégal dafa war a dem maa ngi invité aussi sénégalais yëpp ak ñi nga xam ne ay sympathisants Vieux Thiane ñu jàppale kii di candidature Bassirou Diomaye fay ñi xam ne Bassirou Diomaye Faye dafa war a gagné même premier tour incha allahu rabi te yàlla na ko yàlla def incha allahu rabi yàlla na ko yàlla def jërëjëf. merci beaucoup amis fidèles internautes Sénégal 7 nii lay demee saa su nekk mu nekkoon nag seen entretien bi nga xamante ni moom lañu fii amaloon. amoon plaisir dalal fi ki nga xam ne moom mooy monsieur Vieux Thiam moom nag gis nañ ay ambition dégg ngeen kàddu yi nga xam ne euh, yëkkati na ko jëmale ko ci li nga xam ne moom lañ jëm muy wàllum campagne bi euh, Sénégal 7 aussi dina leen gunge ci li nga xam ne moom mooy élection yi incha allah lépp luy information ak ci bépp candidat boo xamante ni rek fas yéene nga campagne euh, Sénégal 7 dina leen toppal lépp ngeen koy am en temps may jaajëfal bu baax a baax jéey mi nga xamante ni moom moo jàppoon sur la partie technique. chronique euh, merci à Marème euh, Mrs Wele tey moom moo jàpp ci xawa a bi mu xaw a nice mu koy jaajëfal bu baax a baax euh, di leen jox rendez-vous à très bientôt ngeen jëf.